fii nag la sa baaxee dañ la wax ni la jaaral gauche wala jaaral droite wala mun la taxawal fi nga nekkoon loolu moom mënul ñàkk kenn ku ne yaa ngi wax sa entraîneur. 10 minutes ba Leewtoo 10 minutes kenn doorul 10 minutes kenn songul 10 minutes kenn xusuwul 10 minutes kenn gàjjul 10 minutes kenn dépassé wul benn pas fekk ci sa morom dama ni lii taxul ñu fay leen. ala kulli alin di ngeen bëre ndax ku lekk avance tëdd pom waaw ku lekk avance tëdd pom mais combat bi ñoom ñaar mënuñu koo ñàkk bañ a bëre kenn ku nekk rek xëy na bi ak diisaayu làmb ji moo war lii li wóor wóor daal mooy ñoom ñaar kenn mënu see daan sa morom te songloo ko wala dóorloo ko ñu laalante pour teel a mën a am Malick am nay jamono de bu demee woon nii dañ naan koom duñ la waa Gaston wàcc na président Alioune Sarr wàcc na waaw dina wax ak ak Gaston Mbengue wàcc nañu. lamb xaaral ma daw fekkee. waaw demal Cheikh Sarr nee na ngeen bëre. demal te ñëw. président amateur yi nee na ngeen bëre. ñaari avertissement benn ci des benn ci des pour seen xaalis ñu dagg ko ñu mënuñu leen xeexal affaire xaalis yéen xam bële leen kay kay kay taxaw leen ana manager yi taxawal manager nga taxawal waaw. le président Aliou Sarr tam mi ngi nii mbir mi doy na waar parce que ñaari mbër yi pendant dix minutes kenn songul kenn dóorul kenn bërewul dix minutes de balancement de bras kenn fekkiwul sa morom sur le plan contractuel amul benn mbër ci ñoom ñaar ku ci defagum sa devoir président wàcc na Gaston Mbengue wàcc na lii gëj nañu koo gis li mu saam ci làmb dix minutes de balancement de bras fii laa ko mos a gisee bu baax ay magi jëmb ngeen ngeen jël décision jël xaaliss nit ñi ñu concevoir ñu xam ne yéen ñaar ñepp mbeur yu mag ngeen ngeen ñew ba fi ay étranger ci tribune bi amu leen lu ngeen di def lu dul lu ñaaw li su ngeen continuer nak ëlëk lu leen règlement bi tek na ngeen xam ne yéen ko seen bop le président Alioune Sarr ñew na waxal ñaari mbër yi nee bu ngeen bëréwul lu leen dal yéen ko teg seen bopp wax dëgg yàlla lii taxul gars yi ñëw ci stade bi lii taxul fans club yi toog fii lii taxul ñu déployer moye yi ñu déployer lii taxul gaa yi jënd billet dañoo bëgg ngeen bëre bàyyi leen seen yaaba ji ca laale bu doon làmbi jigéen sax jeex na. C'est minutes de balancement de bras, 10 minutes de passivité, 10 minutes, pas de crochet, pas d'attaque, pas de contact. C'est pas pour ça qu'ils ont été nommés. En tout cas, il y a beaucoup de conciliabules. Dans l'enceinte, le promoteur est descendu pour sermonner les deux lutteurs. Le président du CNG est descendu pour sermonner les deux protagonistes. C'est une grande première dans l'histoire de la lutte. En tout cas, ça, depuis que je suis reporter à la RTS, j'ai jamais vu un combat où il y a de passivité. waaw Malika xam nga lii mosul am si làmb bëree ba président CNC wàcc si di wax ak ñoom mosula waaye nag xëy na comme waxtaan naa ak ñoom buñ ñëwaatee daañu am changement te it comme ay xale lañu ñu leen may sens mooy ñoom ñaar arbitre bu suuli waatee defe naa ni changement dina am ndax kenn ku nekk am na la denc sa bopp mbëreet duñ yàgg ni man maa mag maa war tey sama bopp du jàgg ni may ndaw may attaqué li wóor daal mooy ñaar moo koy def il faut ku gën a bëgg a jogis te it bu ñu songowul jël du am. bu ñu songowul jël du am bu ñu jàppantewul jël du am arbitre yi nañu seen place deuxième round dix minutes encore pour ñu xool ndax ñoom ñaar. waaw sos dinañu def dara. sos moom ni mu taxawoon rek la taxawee. Zoss taxaw na Boy Niang ngi jéem a dox ci koom Boy Niang ak Zoss dimanche 8 juillet 2012 stade Demba Diop. te it maa Boy Niang mépp na waaye demul. xeex bu neex la si ñoom ñaar kenn ku nekk sa tànk droite nga jiital amul dara lu lay kale. kenn dooragul kenn songagul lewto bi gën na bar mel na ni Boy Niang moom gën a actif. ñu ngi jéem a avancé. waaw ah, parce que di dox ci kaw sos. mooy xale nag Malick moo war a bëri bëri bi ndax moo nekk si yoon di dem nee na ko mënoo ma téye te gisuma lu may téye kon nag tey yi bu ñëwee war na wane lu tax sos mënu koo téye. jos expérience am lay utiliser bëgg ko juumloo du ma la song yaa soxla yaa war a ñëw yaay xale yaa nekk ci yoon yaa war a ñëw waaye yaa war a ñëw ku mu tax a dem te sa dem jotul nga am lu la naqari. ah li wóor wóor daal mooy booy ndax mooy na ginnaaw Boy Niang daw na song na songum jàpp na Boy Niang jàpp na congu a ah, jàpp na Boy Niang jàpp na jege nañu saaku yi Zoss na ko daaj na ko mais arbitre bi est-ce que sifflé daan na Boy Niang Zoss daan na Boy Niang Arame Seck ragal naa la Arame ne woon na ma Sa Thiès mooy daan Moussa Dioum ah. Zoss moom mooy daan Boy Niang mais Arame Seck bu may ñëw la ma woo wax ma ko kooku moom mi ngi jaaxal nit ñi ah Malick ah day man jommal na ma ah lamb ji doy na waar sel ba feeñ la ma ko waxee barke salaatul fàbbi xam nga Zoss Malick dafa néewul doole lii la bëggoon am na ko juumloo na ko jubloo na ko lii la bëggoon am na ko jeex na song mi baaxul daf ko téléphoné benn instant maa ngi lay wax ma ni cong mi baaxul parce que congum kaw la te daf ko téléphoné la